waaw borom loor Baye Mouhamed mhm. turandoo Mouhamed waaw chéri mama waaw Thiès moom yaa ko ñaay moom bilaay maa ko ñaay dem ba Thiès xool liñ gën a bëgg nga ko Thiès jël Lamine am nga fit alhamdulilah mais loo tax ñaaree xanaa ah déet wax ma wóoru ma de am na ñaar moom wóoru ma de mais ñi amagul lañ am ba pare rek yow amagul yi non man moom man moom bëz war naa am ak Boucar waaw man moom garaawul man mun naa xaar ba si kanam waaw yow mun nga xaar ba kanam na def gis naa gis de danga maa bàyyi kay jël sa yoru bopp. sama doom nga dama la bàyyi. maa ngi lay maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokki internet yi foo mën nekk si àdduna bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan suñu suñu nuyoo bi fekk leen si jàmm waaye donc di nuyu waa Gambie yëpp suñu père Ndongo Cissé suñu père Edi Dione di nuyu di jëmoo Babacar Sarr Birkelane FM ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare Omar Diop. am na solo Lamine ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax baax di leen ziare tey nag dañu koy ubbee Lamine ak li nga xamante ne ni moom mooy les arènes point com mm-hmm. mu daal di ñëw ak ñun ci làmb ji fi amoon hmm. dimanche 30 avril ci arène nationale diggante Quench hmm. booy ak Lac Rose bu Fass hmm. mu am jàngat boo xamante ne ni les arènes point comme def na ko ci combat boobu nga xamante ne moom moo doon am ci ñaari ndaanaan yooyu. ci ñaari ndaanaan yooyu doxoon ci diggante Lac Rose ak ki nga xamante ni moom moo di Quench yaakaar naa ne ku na xam ni bëri nañ combat bu méttee méttee méttee méttee yàgg mu wax ne nag ak lu mën a xew moom la mu jàpp daal mooy Quench gagné na waaye nag la nga xamante ni moom lañ doon xaar maanaam mu convaincre nit ñi gisu ndax jàpp na dafa daan Lac Rose bi nga xamante ni maanaam la waroon a nekk ci moom nekkul ci moom. la waroon a nekk ci moom nekkul ci moom waaye les arènes yemul ci article boobu kese ñëw na itamit ci beneen article di ñu yëgal ñu Doudou Sané ñàkk na ci kana kanamu Tony Junior. Mhm. Tony Junior nag daanaan la. ñu mhm. bari xaañeewu guñu ko ni mais daanaan la. waaw Tony Junior waneeti na boppam rek ndax yaakaar naa ne c'est pas la première un poids lourd ndax yaakaar naa ne digganteem ak général bu Malika fi la ñu fekkoon ci arène nationale mu bëreloo ko wala boog ñu bëre bëre bu rëy mu daan ko jël bu rëy naka noonu tamit noonu la def keroog samedi wala dimanche digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Doudou Sané bëreloo ko bëre bu rëy daan ko jël bu rëy yaakaar naa ne Tony Junior waneete na boppam Omar Diop ci bëre simple bi. waneete na boppam ci bëre simple bi Lamine journal bu suñu làmb moom dafa daal di ñëw ci xëtam gu njëkk des rek comme ni ko ci jour wala comme article bi nga xamante ne ni moom la les arènes andi. Mhm. journal suñu laam moom ci la des. Mhm. muy combat bi amoon dimanche diggante Lac Rose ak Quench. Mhm. bëri nañu douze minutes vingt secondes. yoo xamante ne ni métti na. xeex nañu bëri nañu. douze minutes yu tàng jërë jërë jërë métti loolu la ñu bëre ñaari mbëri diggante Lac Rose ak ki nga xamante ne moom moo di Quench xeex am fa bëri am fa waaye nag nee na Quench moom gën naa dugal ki nga xamante ne moom moo di lagros Rose gannaaw ba nga xamante ne nekk na ci ay série de défaites. yaakaar naa ni quatre défaites de rang la Lac tegle jamono ji. waaw noonu la ko journal sunu lamb waxee quatrième défaite de du euh, de rang du Cobra de Fass noonu la ko journal sunu lamb waxee yaakaar naa ne loolu yëpp nag am jàngat war na ci am waaye tamit ab taxawaay war na ci amaat bu baax a baax ci diggante Lac Rose ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy stafam. ak stafam. Quench bi mu jógewee ci combat boobu ci saasi ay bëgg-bëggam mbok na ci bëgg a ak guy gi. Quench guy gi la bëgg a jàmmaarloo te yaakaar naa ne combat la nga xamante ne combat bu jaadu la ndax Lac Rose bu daanoon danañ ne Lac nga xamante ne moom moo di guy gi yaakaar naa ne ak lu mën a xew nag Quench yaakaar naa ne mu ngi def ay preuve am ci li nga xamante ne moom moo di làmbu bëri na fi ay combat yu bare bare bëri na ci combat yooyu noonu benn match ni la ci am benn défaite la ci am. Mhm. yaakaar naa ne kon nag instant bi jot na ñu tàllal ko loxo ndax it bu jógee dafa am ful ba xamante ne tey muy topp ci ginnaawam kon nag bu nee guy gi loolu jaadu la waaye nag guy gi moo rek cëgal guyam pourquoi nga xamante ne moom mooy Moussa Ndoye bu ñu ko def affaire lébu. parce que tamit dañoo war a bëri nag parce que ñoom ñaar ñu doon bëri keroog ay lébu lañ te yaakaar wax na cofeelam ci ki nga xamante ne moom mooy Lac Rose dañoo war a bëri te yemale ko ci cadre sport mhm. lamb la yaakaar naa ne tey buñ ko yemalee ci cadre sport rek waa Tëngéej sax dinañ mën a war a bëri ak waa Bargny. Mm-hmm. làmb nag jamono ji Lamine Sénégal jàppee wuñu làmb sport. déedéet. lépp loo gisee dañ ciy jéem a dugal affaire rivalité affaire xëccoo ak xiiroo ak ŋaayoo te warta demee noonu. dëgg la dëgg la Ibrahima Mbaye ménager wu Lac Rose mm-hmm. na Lac moom joxe na lépp lu mu amoon gàcce ngalaama. ja gàcce ngalaama yaakaar naa ne loolu Ibrahima Mbaye su ko waxul sax euh, euh, ñi nga xamante ñooy amateurs yi ak ñi seetaan combat bi même booy topp commentaire yi genre wax yooyu la ñuy wax que ni Lac Rose ndax dëgg yàlla def na li nga xamante ni moom moo ko waroon ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di congé waaye nag yaakaar naa ne euh, fas moom Omar Diop ni ñu koy waxee rek lu mu daw daw du tere ñu làbbali ko. des ko làbbali des koy làbbali bu ko defee mu gën a mën a def li nga xamante ne moom mooy ay résultats. mu gën a def ay résultats waaye ci bés boobu Lamine. Hmm. gis nañu li nga xamante ne ni xew na ci biir arène nationale bi yëpp. ndax Gris Bordeaux chef de file écurie Fass le quatrième wala le troisième tigre de Fass ñëw na soutenir poulain moom. moom Gris Bordeaux ak ki nga xamante ne moom moo di site yëpp ña nga woon arène nationale yaakaar naa loolu duñ ñu guleel la ndax ku ne xam na ne seen poulain yi souvent suñu bëree dañuy ñëw fi nga xamante ne moom moo di arène nationale pour épauler leen te yaakaar naa ne loolu mooy seen devoir. ci tous bu journal tous suñu làmb ñu ngi wala ñu ngi xamal que ni ndax Lac Rose est-ce que instant bii nii obligé wul opérer genou. waaw waaw yaakaar naa ne loolu lu lu jaadu la Omar Diop ndax bu fekkee ni li ñu wax ne moom moo ko dal ñu ne ligament la su fekkee ni nag dafa bëgg a traîner ak moom ba pare bëgg a def carrière Omar Diop gëmu ne loolu dina mën a sotti ndax dina la dina la pénaliser pour nga mën a def yenn exercice yi dina la pénaliser tamit pour nga ñemee def yenn action yi ndax psychologiquement dafa am lu mu lay jàpp ci bopp su fekkee nag. Euh, jeune boobu noonu mi ngi mi ngi traîner ak moom ba léegi yaakaar naa ni ci lu mu war a jóg la bu fekkee bëgg na continuer li nga xamante ne moom moo di carrière am. waaye Diène Kairé itamit bi muy génn arène nationale ci samedi bi ay rongoñ la génne. ndax rakk ja moo doon bëri Mbagnick Kaïré moo doon bëri ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Mathia Pereira Mathia Waly numéro 2 Mathia Lirou am ndam ci kawam moo tax ba mu fay génn nag wax dëgg bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo jëli Mbagnick ah ci biir géew bi ñu gis ni jooyul woon waaye journal sunu lamb daal yaakaar naa ni topp nañ ko ba ca bitti mm-hmm. fekk ko mu sëgg Pape Ndoye naka noonu tamit ba ñu daanee mag gi moom tamit ay rangooñ la génne fële nga xamante ni moom moo di arène un mois wu séjour am ci France ñibbisi na nag Sénégal. ñibbisi na fi nga xamante ne moom moo di Sénégal a ne xam na ni moom Sa Thiès dafa demoon ngir xool li nga xamante ne moom moo di yaramam ñibbisi na macha koy ñaanal tan bu baax a baax a baax a waaye lu mën a xew daal ma taxawagul te it kombaam dafa war a mën a taxaw. kombaam dafa war a a taxaw Lamine waaye ki nga xamante ne ni mi ngi woon ci élan bu am solo. Mm-hmm. nekkoon xale boo xamante ne ni demoon nañ ba tuddee ko borom top 5. Mm-hmm. muy Mame Balla. Mm-hmm. gis nga nag ni mu def arène nationale ak jël bi mu daan. Mhm. ay bëgg-bëggam nag du dara dul bëgg bëri ak Moussa Ndoye. bëgg bëri ak Moussa Ndoye la def instant bi moom Mame Balla borom top 5 te yaakaar na ni bëri nañ ba mu yóbbu woon ko top 5. daan na ñu bëri jël bu rëy daan na fi ku ne waaye nag nee na pare na pour jox Moussa Ndoye euh, revanche te yaakaar am na ay promoteur yuy dox boobu lay combat. combat bu neex la combat la itamit bu jaadu. Mhm. te Max itamit wane boppam démb ci premier mai digganteem ak Baye Mandiaye yaakaar naa ne am na jàngat boo xamante ne nii Baye Mandiaye war na ko def ci combat boobu ak ci ba mu jóge woon. ak ci ba mu jóge woon waaye ak côté physique am nag waaye journal sunu lamb daal lu mu ñu wax daal mooy mooy mooy mbot magistral la ko tuddee moom Abdoulaye Dembélé nee na mbot ma daa rëy ba tuddee ko mbot boo xamante ne mbot mbot bu magistral la moom T-Max mu def ko kii nga xamante ne moom moo di Baye Ndiaye Baye Ndiaye moom noonu nag yaakaar naa ni am na lu ko metti démb ci digganteem ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi waaye côté état de forme am tamit yaakaar naa am na ñu jàpp ni la mu andi gënul Omar Diop. la mu andi gënul waaye Mathia Pereira. Hmm. Ndaamali. waaw na ko làmb gën a bàyyi la mu andi gën na moo tax démb wala barki démb. mu hmm. daan adversaire am di ki nga xamante ne moom mooy Mbagnick Kayra mu mel ni moom tamit instant bi mu ngi ci dynamique journée Sambay la woon Mathia Pereira daan fa Mbagnick Kayra. record ñu xamal lamb ji amoon arène nationale le 30 avril Takké bëree na fa ak Youssou Ndour daal di koy daan. jël bu hmm. rëy a rëy bi mu jógee ci defetam digganteem ak Pape Ndoye. bi mu jógee ci defetam wane wane na ni comme ni ñu koy waxee rek mbër bu jógee ci defet bu ñëwaat lañ xam ndax mbër bi am na jom ma xaw ma amoo jom maanaam am na euh, respect ci li muy def wala amu ko euh, ak mën a xewlu moom wane na ko ndax combat jaraloon na ko mu tëj lu toll ak 3 mois wala 4 mois ba ñëwee ba ko gis xam ne entraîné na waaye tamit bëre na daan ci biir bëre moom taxi ratifié wu na daal ci defet bi nga xamante ne fa la jóge ratifié na ci bi nga xamante ne nii ci la jóge record tamit des rek ci combat Lac Rose ak Quench ndax jàpp na ni instant bi moom Lamine Lac bi dafa perte ay couleur am wala boog dafa perte couleur rose bi. couleur rose bi la perte waaw loolu na ko waxee te yaakaar naa ne effectivement noon la deme ndax it ku ne xam na ni instant bi Lac bi ñu gis ni wute na ak Lac Rose bi bëri woon ak Pape Morlo wuute na Lac bi bëri woon ak Ama Neex bi bëri woon ak mm. Sandika ndax combat yooyu yëpp kenn amul woon yaakaar ne tey Lac da ciy génn mu ñëw génn ci avec la manière comme ni ma ko waxee rek Omar Diop rectifié wu ci ki nga xamante ne moom mooy Lac Rose xale la de ñi mi bëreel ñëpp ay moromam lañ wala sax am ñoo xamante ne ñoom ñoo ko ci mag kon yaakaar naa ne war na a di kontaan ci yow baax baax di kontaan ci mbokk internet Aliou Mané maa ngi koy nuyu. Aliou Mané borom cinq menko riko ak mu ak a. ma mënoon a jekk ci mbër. wallaahi muy daanook muy daan moom day jekk moom ñi ñi ñi muy bëreel. seen ah. xelu dal ba keroog muy daan. borom jom la ndax da daan entraîné ñu ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu Boy Bawal tamit di nuyu Jeylaane Pouy depuis euh, Suisse doomu nday Jamaïcain ah Baye Mouhamed moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit waat groupe Lutte TV di leen ziar bu baax a baax a baax di kontaan ci ñoom Omar Diop. Mhm. ndax kuy wax kuy dégloo mbokkam depuis bi ñu commencé ba léegi ñu ngi ñuy jàppale di ñu puuse di ñu gën a yokk jom ku mel ne ñoom tuuti yaay Sarr maa ngi gis message am sànq ñoom Omzo bu Garga ñoom Serigne Ndiour bu Osodou Cheikh Bass Kër Massar Bab Demba ñoom ñëpp. ñu ngi leen tooñ la mën tooñ la waaye nag mu ngi noonu rek moom suñu waay la parce jour ma woo ko ne ko eh, Cheikh Bass sa commentaire bi xoolaat ko wala ko ñu ngi koy béggee parce que instant bi nit ñi commencé nañ ko xam moo tax mu war a góorgóor di commentaire nag lu baax di wax lu baax bas Bass sinon dinaa wax sa place mu nekk gars yi danañ la fa fekk. caw la caw ko ku ko fa fekk daal na ko caw mu bàyyi mu nekk nit Cheikh Bass ñu ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu Galso Fall Fall doomu ndey petit promoteur maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare waaye nag di nuyu Moo Njaay directeur doomu ndey Liir Jaar borom États-Unis Liir koy béggee bu baax a baax di ko ziare doomu ndey Mafal ak moom moom lu muy liggéey États-Unis Liir wat lay def na ko ba mën na instant bi Liir Jaar na maîtriser tendeuse ah bu waxul bu wax ju bari Liir Jaar dina la tiim di la wat ba xolli sa bopp bi. taw ji wax ji daa bëri. waaye nag xëy na Mafal moom waxtaan nag ay. kii la Balla Gaye na am problème rek ndax dina fa wat américain war ko lu bon. ñu téye ko fa <laughs> jërëjëf Omar Diop bëgg yow. ba suba ak jàmm incha allah.